bokk internetu M4 TV ñu nuyuwaat leen bu baax a baax am mbégte jukkil leen xibaar yi tey ci altine ji yemoo ak juróomi fan ci weeru weerub août atum 2024 mi di tegal ay simili ñu dikk ak yéen xibaar yi dañ koy door ci ab xew-xew bu amoon foofu la ca diwaan bu gendarmerie bu wakaam itam daal di tegaat loxo benn réseau boo xam ne ay defkatu ñaawteef lañu foofu la ca diwaan bu wakaam mu doon ay leeral yoo xam ne rek indi nañ ko ñu teewlu beneen liggéey bu rafet bi nga xam ne gendarmerie bu Sénégal daan nañ koy def daal di démanteler nag vaste réseau bu mag a mag bu wàllu cybercriminalité ci diwaanu Wakaam lopp juróom fukki ci ay ordinateur ñu teg leen loxo ak lu tolloog juróom fukki ci doomu Nigéria yi nekkoon fii nag di def ay ñaawteef ci seeni ordinateur ca lañ dem toog daal di vider sa compte bancaire naka noonu def ay carnet de chèque yu bon doomu Nigéria yooyu lu toll fukk ak benn ci ay borne wifi moom lañ defoon ca carte ba dëkk nag ci juróom ci ay kër. ñoom nag li leen feeñal moo nekk dañoo bëggoon a dugg ci système bu Sonatel gannaaw nag société téléphone bi nag ci la def plainte capitaine ture ki nitam ci jàppalulu ñii di escadron surveillé bu intervention bu Dakar nag ci lañ teg loxo yooyu le bandi gannaaw ñetti ay bés ñu leen doon wër. waaye nag ndimbalu askan wi amoon na ci solo lool ndax ñoom ñoo leen woon fi nga xam ne foofu la bandi yi dëkk ci loolu ñu jàppale ñoom ñëpp yóbbu leen ca post ba mun a ubbi enquête bu yaatoo yaatu bu ko defee réseau bi lu ci des yëpp ñu mun koo daane ca diwaan bu Pikine mu di rek ab charretier boo xam ne rek mu ngi wuyoo ci turub Abdou Diallo moom moom la nag moo rek daal di fiiroon benn xale bu toll ci ñeenti at ci samedi ji ñu weesu moom moom la nag ca diwaan bu pikin lu ni mel nag daal di am woon ca si Cap Mbao waaye nag moom moom la niki tey ci altine ji lañ ko waroon a defeere bu ñu sukkandikoo ci Les Échos mi nga xam ne moo joxe boobu la xibaar di fàttali ni rek lu ni mel sax ba muy am dafa fekkoon rek kile di boroom charrette bi daal di yaboon ay bidon yu def ndox doon ko sotti ji gaare fasam bàyyi ko noonu ba faso daal di tiit daw euh, ci mbedd yi ba daal di faat benn xale bu am euh, ñeenti at foofu la ca dika diwaan bu Sicap mbaaw mu doon loo xam ne rek moom la euh, Les Échos daal di dellusiwaat bu baax a baax ci mbir ma nga xam ne rek moo xewoon foofu la ca diwaan bu Pikine ca Sicap Mbao gannaaw loolu ñu àdduwaat jëmale ci meneenu mbir mu di ab tuut boo xam ne ne rek tey ci altine ji waa l'observateur ñoo xamle boobu la xibaar ni dañ ko daal di for ci benn euh, poubelle mbalit euh, foofu le nag euh, ca wetu université virtuelle ca quartier bu nekk sa Sare Kemo bu nekk ca diwaan bu Kolda bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi nga xam ni moo joxe boobu la xibaar ma ngay xam xamle ni rek ki nga xam ne moo for boobu la tout tànk moom nag benn xale bu góor la ca itam te itam bu ñu sukkandikoo ci xibaar ba nga xam ne moom la xale bu góor bi xamle mu ngi xamle ni kat euh, tu tànk bi daanaka rek euh, bu ñu ko xoolee mu ngi daal di am ci lu toll ci benn semaine rek waaye itam ma nga ànd ak bakkanam waaye itam ma ngay daal di dund ci ab jenn jàngoro ji ñuy duppee d'hypothermie moom nag la daal di amee gannaaw loolu itam ñu ngi xamle ni rek ab l'enquête daal di na si juddu ngir xam rek ñan ñooy waajuru waajurub boobule tu tànk euh, bi nga xam ne dañ ko daal di sànni ci mbalit benn xale bu góor ko foofu la ca diwaan bu Kolda waaye itam ña ngi xamle ni rek tout tànk boobu la nag ñu ngi ko yóbbu sa centre de santé bu diwaan bu Kolda ngir daal di saytu lépp lu jëm ci wàllu wér gi yaramam waaye terewul daal di wëyal boobu lépp ngir xam ñan ñooy waajurub boobule tout tànk bu ñu jógee ci loolu daal di àddu ci meneenu mbir ba tey ca diwaan bu na mu jëm nag ca quartier bu naan deuxième robinet ay xale yu jigéen nag ñoo doon rek daal di jàppante ba boo xam ne moom la yoroon bu ñuy léttee mu doon loo xam ne rek ma nga xewee foofu la ca diwaan bu Pikine ci noonu nag ñoom xale ya kenn ki ñàkk na bakkanam waaye te kasa des tamit mu ngi ci loxo yoon ngir rek ñu daal di saytu ana lan moo waral moomu la mbir foofu la ca diwaan bu Pikine la xewee les échos nag bu ñu sukkandikoo ci moom mi nga xam ni moo joxe boobu lépp euh, xibaar mu ngi xamle ni nag ni tey ci altine ji lañ ko daal di xamle euh, tey nag tax ñu daal di fas yéene rek ñoom ñaar euh, xale boobu nga xam ne tamit moom moo daal di faat moroom ñu daal di xam lan moo nekk ci ginnaaw ba tax mu daal di faat moroom bu ñu jógee loolu daal àdduwaat ba tey ci meneenu mbir mu jëm nag ci euh, waajur bu ki fi nekkoon première dame di Marème fay sàll moom nag la ñu xamle ne rek waajuram bu jigéen dañoo daal di dajji këram ba daal di sàcc foofule ay bijoux yoo xam ne rek amee woon na ko ca biir këram. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ni moom la ñu xamle bokk na ci rek lu ni mel bañ koy am. Marème fay Sall nekkul woon foofule ca biir kër ga ndax dafa demoon rek màkk ñu daal di ñëw ci ginnaawam ngir dugg ci néegam daal di jël yenn ci ay bijoux yu am valeur yi nga xam ni moo am foofule waaye itam bu ñu sukkandikoo ci seen web mi nga xam ni moo joxee boobule xibaar ñu ngi xam le ne nag euh, ki def boobule ñaawteef euh, ba tey kenn gisagu ko euh, terewul nag ñu ngi koy wër ngir xam rek ba xam dinañu mën a dinañ ko mën a teg loxo wala déet bu ñu jógee ci loolu daal di àddu jëmale ca diwaan bu Bakel ci ab gaal goo xam ne rek dafa yeboon ay doomu aadama euh, foofule ca euh, village bu Butumba daal di nekk ca commune bu Sadatou ca département bu Bakel bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne moom la ñu am euh, ci ki nga xam ne rek moo témoigne lu nu mel ab gaal la woon goo xam ne mu ngi yàpp lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay doomu aadama bëggoon rek daal di traverser fleuve Falémé bi daal di jubali foofule ca diwaan bu wetu Mali nag googu la gaal dafa mujjee rek daal di suux ci samedi ji ñu weesu bi di jotee la daal di am ci noonu nag xibaar yañ ci xamle bokk na ci ren rek euh, googu la gaal euh, ci noonu gis nañu ni ñeenti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan euh, fukk ak ñetti ñoom ba léegi réer may mayi lañu def kenn xamul fan la ñu nekk ci biir ndox mi waaye itam am na ci kenn koo xam ne nag moom rek moo ca daal di rëcc muy capitaine ba ña ca des nag ña ngay wéyandi ba tey di leen wër ci biir géej gi xamaguñu fan xibaar la ñu daal di joxe foofu la ca diwaan bu bu Tumba nekk ca commune bu euh, Sadatou ca département euh, bu euh, la gannaaw loolu ñu àddu ci meneenu mbir moo xam ni ay bës a ngi nii mu jur coow file ci réew Sénégal gannaaw ba nga xamee ni rek sa concours général bañ doon amal foofu la ca Grand Théâtre ci teewaayub njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre am di Ousmane Sonko moom premier ministre bi nag daal di àddu ci mbirum voile yi maanaam muuraay yi ci école yi ak école catholique yeeg yëpp waaye itam mu jur ba ñu gis ab abbé daal di génn moom it tontu yooyu le kàddu daal di gën a euh, wëyal mbir ma di gën a takkarnaase tax nag ba léegi ñu ngi ciy wax ku ci nekk di ci yëy ndax gis nañu jëwriñ ju ñu wàllu dénk wàllum njàng mi ak njàngale mi mu di Moustapha Guirassy daal di na ci tontu waaye ñeneen ñeneen it daal nañ ciy wax léegi coow ñu ngi bëri waaye itam ñi nga xam ne tamit ñooy yëngu ci wàllum euh, chrétien ak euh, musulman muy euh, ñu yëngu ci wàllum laïc ñoom it daal di ci indi ay leeral ngir bëgg rek ñu daal di xool nan la ñuy def ba réew Sénégal jàmm daal di fi am ndax kat diggante chrétien yi ak ñi nga xam ne ñoo di jullit yi doon na loo xam ne rek dal di na yàgg lool te itam jàmm moo ci am ba tax na nag ñi leen di waa conseil national du laïc ñoom it daal di amal ab déclaration di wax ni rek nañu xoolaat ngir rek lépp loo xam ne nañ koy doxalee jàmm dinañ ci am ndax kat senegal Sénégal sunu Sénégal la waaye itam gis nañu foofu le ca diwaan bu Thiès itam amaat beneen abbé boo xam it moom it daal dinay génn mu doon coow loo xam ne rek daanaka mu ngi bëgg ëppi loxo te itam ñuy ñaan rek jàmm daal di ci am ngir rek lépp daal di delluwaat te mu nekkoon file eh, ci réew Sénégal gannaaw loolu ñu àddu ci meneenu mbir mu jëm ci wàllum eh, White eh, Woodside énergie mi nga xam ne itam fi la nekk ci biir réew senegal ñoom nag ci wàllub taxe nag ñoom it ñoom ñu ngi leen di réclamer lu toll ci quarante et virgule quatre cent soixante sept milliards de francs CFA boo xam ne si ni rek war nañ ko jox bu ñu sukkandikoo ci libération mi nga xam ni moo joxe boobu lépp xibaar mu doon loo xam ne rek moom la ñuy xaarandi waaye itam ci koppar goo xam ne rek takku na loolu waaye itam ci date bu 12 juin 2024 euh, ci noonu itam ñu ngi xaarandi rek waa Woodside Energy di ab entreprise bu yëngu ci wàllum pétrole ak gaz ak lu lu ni mel ñoom it ci lu jëm ci li nga xam ne moo di koppar googule Woodside nag daal di nay contesté li nga xam ne moo di montant bi nga xam ne mooy koppar gi nga xam ni itam moom lañ koy laaj mu toll ci euh, quatre. 41 virgule 467 milliards de français CFA boo xam ne rek war na ko mën a joxe moom Woodside gannaaw loolu ñu ñëw ci wàllu assemblée nationale dañ koy dissoudre wala duñ ko dissoudre gannaaw itam coow li nga xam ni amoon na ci ba xam rek moom premier ministre day daal di dem foofu la def déclaration de politique générale am du ko def waaye itam lu jëmoon ci li nga xam ne moo di bu amee deux ans dañ koy dissoudre wala duñ ko dissoudre li nga xam ni moom la Bassirou Diomaye jaxaar fay di président de la République du Sénégal lan la war a def ak lan la mën a def bu ñu sukkandiku si l'observateur mi nga xam ni moom moo daal di indi boobule xibaar moom it daal dina ci dikk bu baax a baax lam ci àddu rek bokk na ci moom basiiru jomaay Diakhar fay di njiitu réew bu Sénégal ndax dafay rek daal di saisir li nga xam ne moo day conseil constitutionnel ngir daal di xam kañ rek la ñu fas yéene tas assemblée nationale bi wala itam nan lañ fa fas yéene doxale waaye itam mu ñu fàttalikoo rek ñoom it ñu ngi xamle ni euh, ci weeru septembre daanaka lañ ko installé woon te itam am na ci ñenn ñu bëri ñoo xam ne ci wàllu yoon nañ jëm ñoom dañu jàpp ni rek Euh, tànk septembre jotul duñ ko mën a tas waaye itam am na ñoo xam si ni gisuñu lu ni ba tax ñuy xaarandi rek ban réponse lañ ci daal di indi waaye itam article bi nga xam ne moo di article quatre-vingt-sept itam de la constitution am na lenn loo xam ne si ni euh, moom la ci daal di wax euh, ci mbirum assemblée nationale moom nag article quatre-vingt-sept euh, ci constitution bi la mu wax rek bokk na ci ni moom njiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay am na droit daal di tas assemblée nationale bi gannaaw rek euh, bu dégloo premier ministre ak ki nga xam ni moo di président de l' assemblée nationale. ñu jeexal xibaar yi ak wàllum tàggat yaram doomu Sénégal bi nga xam ne rek moo di athlète bi di Cheikh Tidiane Diouf. moom nag euh, n'a pas décroché ce dimanche euh, au Saint-Denis sa qualification moom nag mujjul rek daal di qualifier ci Jeux olympiques yi nga xam ne moom la ñuy amal foofu la ca diwaan bu Paris ci atum 2024 moom moom la nag champion d'Afrique boobule cinquième euh, série lu jëm ci 400 mètres yi nga xam doon nañ ko daw niki démb ci dimanche ji moom nag mujjuta dal di rek jàll ba tax nag mu daal di qualifié waaye itam am na beneen doomu sénégalais boo xam ne itam qualifié na ci demi-finale yi nga xam ne ca Paris mu jëm ci wàllub Jeux olympiques yi mbokku internetu M4 TV di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñu doon teewlu di leen euh, wax ngeen abone waaye itam di like di partager ngir lépp loo xam ne rek mooy sunu xibaar ngeen mën ko jot ci anam bi mu ware waaye itam di leen wax ngeen continuer ba tey di wéy di euh, topp m ngir lépp loo xam ne rek moo fi am bu 16 jotee dina am beneen émission boo xam ne rek danañ ko amal di leen ñaanal kenn lu jàmm te du ko sàkku si yéen jaa def